la Akbar bi mu nekkee ca lam fi fekk yépp ba am ndigaluk yàlla ngir yeesalaat loole di dox dëppoo ak nattu yi dal ci kawam ba ay noonu jamonoom jële ko fi yóbbu ko bitim réew muy xisa goo xam ne li ëpp ci ñun peeg nañ dem sëriñ bi ak bëgg la amoon ci yonent bi sallallahu alayhi ak xemmeem ña nga xam ne saa su ne duñu tàqalikoo ak moom mu bëgg a bokk ci ñooñu ni ko sëñ Abdou Lahat nettalee ci tegtal ixtilaaf boobu mu defoon ci jàkk ji sëriñ Mbàkke dina defaroon waaye def ci biti Gabon juróom-ñaari at ak lu teg woolu maam Cheikh Anta mu fekk si ko fa ba mu ko fa fekk see it Serigne Touba Khadim wax na mébétam ak bëgg-bëggam ak yéeneem maam Cheikh Anta waaye Cheikh Sidil Mokhtar ci déglu bi ko sëñ Touba di déglu. ak ànd gi muy ànd ak moom ci li ëpp ci ay kàddoom moo sàkku sëriñ bi ngir mu dellu si ba tegtal gi ci am ci alquran wallahu yadduhu ila daari salaami wa yahdi man yasha ila siraatin loolu nag tegtal na dellusi si sëriñ bi waaye it waxoon na ko ne foo ma dégg rek dama faa jaar samay bagage fii laa koy wàcce fukki fan ak juróom-ñeent ci kori ba ñaar fukki fan ci diggub tabaski la Serigne Touba def fii ci Darou Salaam muy weer wu dëkk woo xam ne kenn mënu ko wàññi ci ay fan waaye it juróom-ñaari fan yu njëkk yi lu ne maam Cheikh Anta defal na ko ci ngir teral ko te loolu dafa bokk ci ak bëgg boo jaayanteek sa kilifa muy sa wasila sa digganteek sa borom boo jiitalul ak bëgg rek la nga am doo ko bëgg Sëriñ Tuubaa amul woon sago ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daani li in nabi xubbi zaatihi yu bari nee na la ma ko may mooy bëgg gi ma bëgg ak jëmmam te ba muy joxe melokaanu murit bokk na ca la mu waxoon asidqu fi mahabbati cheikh bëgg googu nag feeñ ci Seex Sidil Muxtaar mooy dox ba tey moo tax boroom téere ba nee na sooy bëgg bëggal te yàlla rek tax wa man yuhibba lillah wa yubxida lahu wa yarda lahu lay sabab bi mooy dina dem ba su kanamu sunu borom subhaanahu wa taala jëf lu mu rëy rëy rëy la ca am solo mooy jëf gi sax kon Cheikh Sidil Muxtaar ak bëggam yàlla képp la ko la ko seddaloon digganteem ak sëriñ Touba. amul benn poñetu àdduna gu taxoon mu bëgg sëñ Tuubaa amul benn bëgg-bëgg àdduna bu taxoon mu bëgg sëñ Tuubaa bëgg gi te yàlla rek tax moo wane ba lii tey ba muy bëgg a tàggoo 1939 ci la nag bés bii naa ko yeesalaat wax ko ni mu ko bëggee waaye boo ko nattee ba tey jii 1939 ba 2022 lu bari feeñ na ci te la ca gën a fës nag mooy alxuraanul karim bi ciy feeñ. lépp lu fi waaye di def ak lu mu bari bari bari mënta fawxa alxuraanul karim yi ñuy jàng ci dëkk bi fii ndax fukki fan ak juróom ci digg wi diggub tabaski ba ñaar fukki fan bu màggalee ba ca ëllëg sa du ñu dañ di jàng ay lim ci alxuraanul karim kon nag loolu tawfiix la waaye nag sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar am na cër ci ci ci ci Seex Sidil Muxtaar cër bi mooy njabootam wane nañ loolu ni ñu ko wanee mooy tàggat bi ñuy tàggat nit ñi xirtal gi ñu leen di xirtal ci njub saxal gi ñu leen di saxal ci siraat ñu ngi ñuy xamal ne sëriñ Sidi Mbacké mu maam Thierno Daaru Marnaan teew na fi léegi yal na yàlla barkeel te mottali lépp ci barke alquran kon loolu mooy fësal jëme ci wàllu liggéey bi sëriñ Ibrahima Mbacké Ndar am na cër ci maam Cheikh Anta cëram feeñ na ci njabootam ndax kenn ku nekk ci ñoom sa xemmemteef mooy nan ngay def ba teg ndaw ñi ci siraatul mustaqim amin amin amin jërëjëfati Mbàkke macha allah amin sëriñ Sidi ibnu sëñ Ibra Mbàkke Ndar nee na mu ngi leen di seedeel ne sëriñ Sidi Mbacke mu maam Thierno Daaru Marnaan moo fi teew nii di ko ziar si muy ànd goo xam ne ànd gu yàgg la kon booy tudd sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar ki nga xam ne moo yoroon turu saayiram sëtam teew fi loolu ak tawféex la seen taxawaay Mbacke ca ndakaaru nga xam ne fu jafe liggéeyal yàlla la fu jage jafee liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen am ci taxawaay bu ràññeeku li ngeen fi defar ci ay nit ñoo xam ne sànku nañu woon dañuy wax ca woykat ba nee na lislaam bi sànku ji na woon bàmbaa ko dab ci biiru noon benn sëriñ moo fi ne woon mooy Cheikh Ahmadul Xadim waaye yéen ñii day kàddu googu dégg ngeen ko li ëpp ci ñun ñi fi teew te dëkk ndakaaru sànku ji nañu woon waaye ndimbal li ñu am mooy sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar moo def leeram ci suñu dën ci suñu dënn ba njabootam bu ñu gis du am sago ci ñun ngir jubal ñu teg bi ngeen ñu teg ci yoonu njub àndu leen ci ak sago ñàkk sago googu ngeen am ci loolu ba teg ñu ci moo tax it mënuñoo am sago ci yéen nit mën na laa defal lu nekk ba nga fay ko waaye jël leeru sunu borom tàbbal ko ci sa biir dënn ngay yëg yàlla kooku mënoo koo fay moo tax kenn ku ci nekk ci ñun sa xër ca ca këla Sëriñ booleel bu yeboo ku nekk rek nangul la ko te xam ne foofu mooy sa tolluwaay kenn ku ci nekk nag ca na nga sóoboo képp noonu képp ngay tax waaye Mbàkke yéen ko jëf yéen a ko liggéey liggéeyal ngeen alxuraan ba li ëpp ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ci jamono ji ci yéen lañu royee ba ngeen koy tàmbali kenn xalaatu ko loolu li mu feeñal doy na tawfiix mbokki taalibe yi ñun ñi nekk ci biir ëtt bii di ëttu sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar am nañ lu jafe te lu jafe boo ko amee danga ko war a téye te fonk te téye te fonk ko mooy kenn ku nekk ci ñun ki la maam Cheikh Anta booleel bul am sago ci moom bul ko jib mukk di xalaat loo koy jox ak loo ko dul jox ndax nit bu xasee wax aslamtu nafsi bu gisee sëriñam na jël léppam jox li ëpp ci ñun bés bii ku ci am looy denc di waajal leneen néewal bés bii sa gëm sa diggante ak sëñ des na te loo leen jox ñoom ñu def ko ci sëñ loo leen jox ngi def ko ci sëñ Touba njabootu sëñ Ibrahima Mbacke Ndar gi yëpp ñun ñu fi toog di dongo yi kan moo fi mës a fàttaliku kenn ci ñoom ñëw sa kër di am lu mu lay laaj loolu du seen yitte taxu leen a jóg ñoom ñooy yëkkati di leen jox dañoo boole teraanga Ndar dayloo maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawam yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla sàmm leen li ci des nag mooy ñu jàng xatmu bi bu ñu jàngee xatmu bi ba noppi leneen lu ci tegu. sëñ bi dina ci joxe ndigal sëñ siidi sëriñ bi nee na mu ngi lay seedeel ni daaraam ji nga xam ne ibbi woon na ko fële ca ndar mat na juróom-ñaari at ci ren su ma juumul daara ja génnee na fukki dongo yoo xam ne dañoo wàcc ci biir fukki yi juróom mokkal nañ ci looloo taxoon mu jële leen foofu ndar indi leen fii ngir teral leen ci bisu màggal am na ci kenn ku mu fukki dongo yuñ ma jox lu ëpp fukki dongo ñu jox ma ko fukk ci ñoom génn mokkal alxuraan juróom ña tari maanaam wàcce alxuraan juróom ña tari nee na loolu rek doy na taw tawféex ci moom nee nag liggéey la koo xam ne yow képp la ko mën a seedeel ngir nga mën koo yëg lim yi bàyyeekoo na fu nekk saadatu daaray ni bu sëriñ Modou Mamoun asxaabul jannati bu Medina jëwrin Adama Diop jiite ko miftaawul nasri bu sëriñ Saliou mbàkke Darou Salaam ak yeneen wëllëre yi lim yi bàyyeekoo na fu ne sëriñ Sidi ngir lan ñu dajale lim yooyu yëpp def ko muy benn xatmu loolu nag Mbàkke taw féex la goo xam ne mbokki taalibe yi mbooleem ñi nekk biir ëtt sëñ bi Mbàkke Ndar tàmbali woon nañ ay limu alxuraan di ko jàng ba tey jii ñoom ñëpp dajale nañ lim yi indi incha allah jataayu xataayu jataay bi moo tax waaye dinañ la tënkal lépp indi jot la ko nga xam li ñu jàng ci alxuraan ci bis bi ñu ngi siyaare ñëpp tey ñaanal ñëpp te bàyyi sëriñ bi ak kàddu gi ndigal lu mu joxe rek kon nee na nañ maase ñun ñëpp jàng suuratul fatiha jàng salaatu ala nabi ñu jàng xatmul quran bi bu ñu fi noppee dinañ dox dem ba ci barabu sëriñ Ibra Mbàkke Ndar duñ fa jàng alquran ndax lañu waroon jàng yépp jàng nañ ko fii xatmu bu njëkk bi lañ jàng fii ñaareelu xatmu bi buñ demee ca barabu sëriñ Ibra Mbàkke Ndar incha allah ñu jàng ko fa sëriñ bi nee na mu ngi soññ ñëpp nañ daan defee ziyaar yi na amuk dal ñu bàyyi xel ñi nekk ci wet gi ñu am yërmande ci ñoom def war ma it ci barab yi barabu daaru salaam tàmbali na di yaatu kenn ku ne fa ngay dox na nga ko xool te xam ne kërug jàmbur kenn du kenn du ko joggi loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokki taalibe yi incha allah jërëjëf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 wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin xaatimi nabiina wa imaami almursalin ila siwa nahwi bil ixlaasi judli ila jannati al ixlaas rasidu ya sabuur salli bi salaam ala alladi faaqa bi axsani alkalaam sayidina muhammadin wal ali wa saxbihi fi laali walmaali waltakfina bi xaqi surati alfalaq wa surati annaasi alaza ya man xalaq waktub lahu salla alayhi bi salaam fi alihi wa saxbihi baaqi salaam bi kulli xarfin min tixi alxuruf bisharatan jalno bi

di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye di ñaanal sëriñ Sidi Mbàkke mi toog li ma ta wax sëriñ Xaadim Njaay mi wax na yow da sore waaye yow rek li nga jubal ci ndakaaru ci alxuraan doy na sëkk mu jóge na ci sab sëriñ bu baax bi sëriñ Babacar mu kamal waaye sëriñ Sidi yal na nga jàmm yow ñëpp la jàmm kiin déggulu ci dara na li sa liggéey maam bi rek sëñ gaawaan rek gëm yàlla lool bëgg ko di jaamu yàlla li ma la wax rek man dama ne man France laa la xamee France te Paris laa la xamee ñu naa France seet seet si la ba sa kër fa nga dëkk nii nga mel nii rek nga ma waaye cër bi yàlla xamoon naa ne am na lu lay préparé li mooy lii tey waaye sëñ bi ñu ngi sant bu baax sark yu baax ji sëñ Babacar Mbacke sa Baye Fall bii nga xam ne ñëpp nangul nan ko ñun fii fii moom fiy dugal yi après trente cinq moom mi moom fi dugaloon ñu ànd ak ñu di liggéey waaye seen wéyure sëñ Ibrahima Mbacke dafa jëlal baat dem làq ko ngir lan taay bi gëm Serigne Touba waaye moo toj Ndakaaru yë ba nga yëngal Ndakaaru kenn yëngalul sëñ Ibrahima ba mu yëngal mu jaar sëñ Babacar mi kenn yëngalul tey ñu bare yaa leen tax a jóg kooku mu ne mu kabaroo ay wax nañ dëgg. nit boo defee ci moom alxuraan def ci jaamu yàlla jox ko ngëm sëñ Xaadim wax wax nga dëgg taalibe du calcul bu sëñ bi nee nangam rek noonu jëf loolu moo de ak taalibe waaye sëñ Sidi ñoo nga ñaan nga yàgg fi loolu te ànd ak wér lii lay ñaanal mooy lii yàlla teg sa kaw muy xalifa gii metti na waaye lu la yàlla ñu lu ko téeñal téeñ kon nag Mbàkke bis bii tey di bii nga xam ne tey ci la sëriñ gaawaan ganewoon si magam ju baax ja ñu ngi ñaan nga gudd fan loolu tawér ànd ko na sark ju baax ji ak ku la nangul nag lu baax yombut de sëñ Babacar cër du ko yàlla jox moom rek la ko jox xoolul kenn ku dul yow mu lu wax mu sëriñ siidi loo loolu cër la de yooyu yàlla na yàgg Mbàkke ñu ngi ñaan daal lii daal yàlla fi yàgg daje li nga bëgg daal sa njaboot gi ak si borom dër gii yàlla na nga dem ba mu ci lu kaw sa njort yàlla mën na ko dana ko def barke sëñ Tuubaa bi nee mi ngi sant ñëpp du nuyu ñëpp nee na bis bi nag dana ci lancer message jëmale ko ci nguur gi nañu dal. ñu xam ni Sénégal ñoo ko bokk. ndax yéen a ngi jël loolu. muy Macky ak Sonko. nañu toog wax. bu yàq Sénégal. Sénégal am na fi loo xam ne kenn mënu ko yàq. kenn ko yàq nag. ku yàq mu dellu sa kaw. mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. yal sutura. sëñ Babacar Mbacke mu kabaraw yàlla dafa tawféex la ilaha illallah nee na lii ngay liggéey ba mu la koy wax ëpp na juróom fukki mbaa ëpp na ko nee na kon ku xam lii de du du am mbetteel sëñ bi nee na mi ngi lay ñaanal bu baax di ñaanal rakkam yi sëriñ Saaliw sëñ Ibba Taal du ci bëri alaaj takku yónni na njabootam. ñeene di ñaanal jigéen ñëpp nag mamanta Mbakke ak mamanta ak Seynabu ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp Mbakke yéen yàlla defal tawfiix yokkunu yokkunu ci bis bi waxuma rek lañ fi jàng ci alxuraan jàng ko ci tuxfatu jàng ko ci yaasin jàng ko ci muwayibu ak jasmul xulóob képp ku fi fas nee na suñu bon daan defal tawfiix de yàlla nañu defal màggalu barke te may nu wér gu yaram ñu ngi sant ñëpp. la ilaha illallah. mais waaw nañ ci liggéey bi Mbacke waaw siyaaro balab bi nañ ci lañ def waaye dégg ngeen message bi sëñ bi yónnee mu jëm ci réew mi mbakke ku mel ne war naa wax réew mi ñor na la te réew mi noo ko bokk kon nag li nga wax na président ñu ñu ko séq jëpp nañu bokk soog waxtaan. ndax bari na lu ne yàq yoo xam ne ñu ngi yàq nit ko xam ne yoonam nekku ci kon nag réew mi wax jot na Mbàkke lii lii dey lëndëm séntu ci yow ñu ngi ñaan gudd fan te yàggoon digal seen digal daal na lu yomb ci barkeb Sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Sidi Mbàkke waaw kon nag xanaa ndigal sëñ Babacar neen nu waaj laa ilaaha ni ñoo ngi ci liggéey bi rek jëf Mbàkke tey sëñ Sidi kenn du moom wax nga dëgg de